salaamaaleykum mbokk yi di xel fi ci joko 221 sant ak ngeureum ñal na leen phénomène bi am ñepp ko gëssando muy walu mbëkk mi di ñaanal suñu doom yi dess mbuur yàlla na leen yalla xare aljanna président de la république monsieur Bassirou Diomaye jaxar fay def geste bu rafet demb demb mbuur jaale ñi nga xamanteni ni ñoo ñàkk seen ay doom ci geej gi mais le président de la république wax ci rafet na mais li nan la ci yokal moy amna lu gëna urgence moy nga taxaw ci xeyu ndaw ñi président de la république ndaw ñi nga gis ñu fas yéene jël gal gi seen yaakaar mo tass nga jàppale ndaw ñi créer ay entreprise créer ay société recruter say doomu réew ñu liggéey ci biir entreprise yi ndax tay ñi nga gis ñu jël gal gi ay étudiants am na ci ñoo xam dañu jank am ay diplôme paré tok du chômer président de la république ñi di jël gal gi dañu jaxlé neexul ngay jël gal go xamné xam nga ni sa bakkan mën na des si géej gi. mais maanaam tellement pression familiale bi nga xam ne moom lañ lay teg tellement da dootoo bëgg a dund si biir réew mi parce que man du jël exemple si kenn quoi damay jël exemple sama bopp. maanaam pression familiale bi ñu lay teg sa biir famille maanaam loolu moo tax ndaw yi di génn dem jël di jël gaal gi parce que man man man placé woon naa placé boo xam ne tey jii nekkoon naa situation xam ne maanaam sama xel musoon nekk si jël gaal te teewul booy dama la doon maanaam yedd naan booy waruñ jël gaal. di voilà soo ñëwee Sénégal ba yow amoo yenn situation yi maanaam tellement li ngay dund sa famille da ngay comprendre jeunesse bi maanaam pourquoi nanguñ toog fii nii parce que si sa biir famille ah ñoom ñoo lay teg loo xam ne tey doo bëgg a toog fii man dèjà man dama jot a dund loolu noonu ba sama xel dafay sax bëgg a jël gaal dem mais man am naa mental boo xam ne tey jii nii man kenn nekk Sénégal du dund dund bu neex dund bu tranquille maanaam yow nga xañ ma sama dund ba pare ngay jël gaal maanaam man ma jël gaal ba pare yow nga des Sénégal dund dund gu neex ndaw jël gaal gi lenn kese la pël fuuta yi pël fuuta yi ñu yàqal suñu réew mi da nga yew cinq barki Cheikh Ahmadou Bamba di wuri métier di wuri liggéey entreprise bo dem fekk fo peul fuure yi fees dell. est ce que est ce que du peul fuure da no gëna a nangu non non da ngay fay ko 3000 manela ne wala nga dem ci ben entreprise ñu lay ñi lay fay 7000 nga dem nga dem ñom 2000 francs bo la nga fay ñu liggéey yow tamit do am ci ben entreprise xam nga li la wax. do am ci ben entreprise xam nga la wax di bëgg xaalis bëgg wéccat bëgg dara. bëgg bëgg see investir quoi xam laax di fay 7000 gis ku lay fayeeku 2000 gis ku lay fayeeku 2000 nga koy fay nga gay fay 7000. léegi lan nga bëgg si Pël Fuuta ñu wutal leen ay carte séjour wala ñu tëbal leen génn leen réew mi. Euh, gis naa ne comme yurts yi gars yi dañ bëgg liggéey xam moo tax ñu ngi jël gaal dem ci ci euh, mbëkki soo ak ku munul doon nga war a dem ma wax am nga nga gis action tisu melni nga wara baye sa hel nga muna a benen beneen bu moy ak dugg ci bir geej bi ne da ngay dem clandestine wa dekk bi da metti motax boy di jël gal non ak lu metti metti nga dugg ci bir dekk bi nga dem hol yenen travail lo muna a bu moy dugg ci bir geej bi dem am nga geej bi tamit amul bankas so bo waree dugg ci bir geej bi nga ne da ngay dem kalandi sen bu gal bi toje yow do am fo di la nga am so mun nga dee wala lenen mu fekk la so loolu nak la am parfois ñu dégg ñu ni ki yaaya mo teggi nat jox mu tukki. manam wa loolu mom manam parents yi bu dee si côté yaay manam sa yaay dafa bëgg manam limi mu fi muy du fofu parce que mu diw dem na rek wala amna ki ata terrasse mi ci mi euh, terrasse na rek yow c'est parce que do nga wara dem non non parce que man nga tok fini am lo xamne tay ji ni ko dem du ko am quoi. voilà mais maanaam euh, bu dee côté euh, yaay yi moom nañu nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax a a baax tey bu fekkee yow da nga nekk góor ki dem Europe bu tabaxee ay terrasse am loolu bul xool loolu lu mu mën tax bul xoolal yow maanaam sa benn bi nga yor xoolal loolu quoi mais bul xool ne diw dem na rek war dem non nañu toog fii liggéey buñu liggéeyee maanaam yàlla mën nañu defal teraanga képp koo xam ne li nga xam ne suñu borom loolu la wërsëg la nga yem si loolu mais bul xool maanaam loo xam ne da nga war a am ba war a denc suñu borom néew bi mu la toll yemal si néew boobu yaa ngi liggéey yaa ngi feeb boo feebaree faju boo yaa ngi topp sa njaboot borom alal bi loolu rek lay def maanaam bu feebaree day faju bu tëdd jotee mu tëdd bu xiifee lekk su maree naan loolu borom alal bi def ndaw ji tamit il faut ñu xoolool bu baax a baax. ñoo jël liggéeyu sénégalais yëpp teego Pël Fuuta yi ñoo jël liggéeyu sénégalais yi téego xalal manal sawaay yàq liggéey bépp waaw nañ leen wutal ay carte séjour wala ñu xool lu leen def wala ñu tëbal leen génn leen dëkk bi. looy wax si président ak Pël Fuuta yi. président bi loo koy wax si. message moom laa lancé. na wax ci peul fu rëy wax ci ndereg yi sonu nan de wër na fall sonu nan lol way bëgg nga dal ñu génne leen nan non mën na ñak étranger. am réew Sénégalais yaangi dem ba France dem Espagne dafa nek di liggéey. ma nga liggéey yow Sénégal ban ban liggéey bu lësi nga fi maso, mi tabak bar yow ñëw ñaara so ñoo tabax ay kër ay hectare hectare te jagarra bu 450000 sax ko jëndal seen bop te kër gi nii tabax li daj borom am na liñ daj ci biir kër gi man mi ay métier métier laa dajale teegu mais mënu maa yor xaalis. état état état ñu ngi koy xaar ci mu tëj ji bépp bunt bu nga xamante ni yoon la pour gaal yi war a génn waaw because tiis bi ñu ñëpp la dal nekkul comme mbuur rek ñoo ko nekk di fees ñun ñëpp la dal soo kuy doomu Sénégal yow. affaire bi metti na la soo yow président bi ak nu mu munul mel président bi moom war na mun a jàpp liggéey tëj yoon bi nga xamante ni foofu la gaal yi war a mun a jaar ba jàll. nga xam ne dañuy nekk si série yi maanaam xam ne dañuy jouer ay théâtre parce que ñu ëpp ñu influence ndaw si lañ bokk parce que li tax ñu influence ndaw mooy maanaam dañuy xool koo xam ne day tëba tëb rek am xaalis. parce que séeréer doo ko suyee noonu doo tëb tëb xaalis parce que ndaw bi mi ngi gis li nga xam ne maanaam luxe bi nday xale yi xale bi seetaan luxe boobu moom la ñuy bëgg a tellement boobu mooy ne seen bopp moom la ñuy bëgg a moo tax ñu jël gaal dem maanaam tey jii bu fekkee da ngay jouer séeréer nga xool acteur bi nga xam ne moom moo yor xaalis maanaam nga xool moom mu jóge village ñëw di rampe di rampe di rampe benn ñaar di jóge maanaam kenn ki mi ngi euh, euh, acteur bi moom ñëw na mi ngi yor benn mbuusam di wër di marchand ambulant ba xëy ba taxawal entreprise maanaam foofu la ñu war a foofu la ñu war a jouer jouer théâtre yi mais bu fekkee ne nit ki dafa xëy xëy am mais maanaam doo xam exactement qu'est-ce quoi beneen bi mooy maanaam ñu jàngal ndaw yi série yi ñu jàngal ndaw yi naka la ñuy gérer entreprise ak entreprise boo ko géré ba mu war a a taxawaat géré war entreprise bu mu taxaw il faut ñu jàngal loolu mais série yi maanaam tellement ay xale jigéen rafet lañ ci wane ak xale jigéen yoo xam loolu amul sax ñun jeune bi loolu comme que tey dañoo gëm ni nga baal ma maanaam ñi nga xam ne tey dañu jóge université ñëw si bëri dañu gëm ni da ngay xaar état mu jox liggéey alors que entreprise yow nga ko créer sa bopp voilà entreprise mën nga ko créer sa bopp parce que man jaar naa si créer entreprise parce que man la machine bi di débuté diko fay di jënd samay samay samay col 200 col 300 ba tay may ma dem ba jeggoon ci niveau bo xamne ba yor ay 5 5 machine di yor ay emploi réel fay. parce que non lañuy ñuy créer entreprise da ngay def da ngay débuté def ndànk-ndànk ba kéré ngay ba sa entreprise taxaw parce que tey jii man bima ñëwé Sénégal man tooguma quoi donc ma ngi xey di liggéey. manam di di di di fexé ba nga xamné parce que déjà xamna ñuy créer entreprise maanaam suma ma créer entreprise bu daano xamna nu may defal ba créer ko. ba jugaat ba jugaat. waaw loolu nag lañu war a jàngal ndaw ñu xam ne tey jii yow war nga mën a yor 10 000 francs créer sa entreprise ba jóg tant que créer waxuñu ndaw yi loolu ne ndaw yi maanaam il faut ñu xamal leen loolu ba ñu comprendre ne maanaam yow 10 000 francs bi nga wala entreprise bi ngay liggéey ne ko fa pour da nga fa nekk pour yàgg foofu quoi voilà da fa dem pour quelque temps pour mën a créer entreprise loolu moom laa xam ne tey jii nii maanaam ndaw yi war nañ bàyyi xelal bu baax fi may daal ne encore une fois maanaam bépp ndaw bi ne sa biir famille sa famille la teg pression lankal bañal toogal nga dund sa dund tranquillement parce que képp ku la ko xañ moom day dund dundam tranquillement parce que dund comme li li Bouba Ndour waxoon rek dund bi nga nek xalé nga koy def mënoo nek ci àll ba nek mak ñoo bëgg a dund réew mi buñ fi toogee yalla mëna ñu defal surtout ñi créé entreprise liggéey voilà lool dal la xamné mom la gëna marqué man sama dund moy manam yenn pression yi nga xamné tag teg nañ la dañ ñu koy teg pare di ko teg samay morom parce que man dama ko gis dama ko dund dama ko gis gis naa ñoo xam ne billaahi walaay bëgguñu Sénégal dara ñi bir lañ bëgg génn réew lañ bëgg mais li am lan mo ci responsabilité état voilà état mom manam li nga xamne mo lu wara def moy manam munul parce que état fu nek ni dolem yegul fo xamne tay manam li nga xamne mom la wara créer ci ci employé manam bo xolé salaire manam de non parce que ay 100 000 francs 120 000 110 000 la ngand 300 000 la ngand ngand 300 000 il faut diplôme voilà il faut ngam diplôme lol tamit manam état wona ci ligue ligue bu am solo parce que tan ndaw yi manam ñu baña to xaar état parce que waroo mën a xaar état parce que tayji man man mo di xaar état damay xëy dem dugg ci dëkk bi wàcc terrain bi li jën sans bopp manam buma amé secteur état ma jël mais fofu bu fay am 100000 wala 120000 tamit damay xol lenen jima créer entreprise pour meuna a jóg quoi ndaw itam il faut ñu baye xel ne état ñu utal boy liggéey mënul nek lool mom mënut a c'est impossible manam ñun rek ño wara meuna mën jóg taxaw manam jóg outil liggéey ba pare état jàpp ci lool rek état lool la ci mën quoi lool da la xamné mom vraiment. machallah allah kontaan naa looy voilà xanaa di di di encouragé ndaw yi aussi di jaale ñi nga xam ne ñoo jot a jaar si géej gi quoi maa ngi leen maa ngi leen di jaale bu baax a baax a baax a baax suñu suñu mbokki mbuur ndax man mbuur dëkk quoi voilà juddoo maanaam falaa juddoo voilà donc maa ngi gën a encouragé ndaw ñu gën a taxaw toog si réew liggéey maanaam dajale ba am jaar si yoon bu baax bi mais man du ma dugg gaal lol mom la clair man sama benn famille mënu tek bu mu dugg du ma dugg parce que xamul da dund gu neex gi ne fii nii ah du ma fi baye du dugg di de parce que mais xalé yi dañu wara am jëkër aussi la war a takk <laughs> <laughs> mais ñun ñëpp bu ñu demee xale yi kan moo leen tak xalé yu jigéen ñoo ngi kaas ñeneen goor ñaa ngi dee si géej gi ñeneen ñi ñoo ngi jël buñu démé xalé yi kan moo leen tak voilà kenn du leen tak kon nak gaay yi nañ tok ci rew bi liggéey kenn ku ne li nga am bu ko xeeb quoi gaay yi des fois tamit dañuy xeeb quoi kenn ku ne li nga am bu ko xeeb voilà parce que démb dugal naa benn vidéo am benn gaan bu koy critiquer naan non sawaay lii ngay liggéey léegi lii bi boo jox liggéey ko mais xam nga gars dañuy complexe liggéey bi quoi naan non su ma liggéey bi non sama booy bi ma gisee wala sama mbokk ma gisee wala su ma gisee non non yow xoolal gars mbalin mu gars yi war a bale mais parce que fenn ma bu la fayé 100000 francs té téw ma nga xam bolé ci si business wala bo waré la nga emprunter wala nga dem syndicat nga yanu yanu bo waré def sefor dafa sefor mais nan non suma défé li sama gaane ma gissé wala gars ñu koy gisee non non man defuma lo man damay dañ sa mouni lay def jërë ngeen jëf mbokki internet yi lii nañ leen indi lon tay mu nekkon phénomène bo xamni phénomène bu doy war la ngeen gis mbëkk mi clandestin bi nit ñi di jël gal gi di ci ñak seen bakkan di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo des si géej gi yal na leen yàlla xare aljana rek waaye comme na ma ko waxee woon rek sa njëlbeen ba noonu laa koy tëjeewaat di ay kàddu soññu le président de la république comme ni niñ ko defee léegi suñu reportage ni ko ndaw ñu waxee di leen jaajëfal di jaajëfal sunu caméraman bi bu baax di wax ni ñoo ngi nii si gaalu Baye Cheikh Diop di ñaanal Sénégal yi di ñaanal le président de la république ak kilifa diine yi